recensement ñu des ba tey ci premier point bi leneen nag waaw ñu ngi ñëwaat ci maa ngi ñëw ci premier point. waaw waaw ci dialogue bi. mooy lan 2019 président Macky Sall bu muy dem élection sur 29 dépôts y a eu 22 rejets y a eu 5 candidats et nous sommes allés aux élections aujourd'hui nous sommes à 20 candidats 19 on 20 20 candidats au départ on nous parle de report. Mm-hmm. donc réellement le problème te lu ñu doon wax gisuñu ko pour man dialogue bi dañoo dialoguer pour leneen loo xamante ne tey. du lu jëm ci wàllu élection mais c'est des dialogues yoo xamante ne ça ne concerne pas tey euh, l'avenir de ce pays. très bien Kajoor.